pour Sadio Mané moi je l'ai toujours estimé xale bi ndax tamit nag vraiment dëkk fa nga dëkk defar ko. te am am na ñu bari ñu ma ñu mu waroon. Mhm. te xale bi vraiment discipline na. parce que man am na am naa un frère boo dafay nekk ci fédération bi. man gisaguma ko. mais xam naa ne am na discipline. jàng na te xam na ay àqu mag ak ay waajuram. parce que dans la dans la vie la plus grande joie c'est d'être utile aux autres te mu ngi def. te mu ngi def faale na nit ñi xam nañu ne. am na portable bu yàqook gëndul ak léegi loolu mu ngi téye yàlla may ko nag. yéen a na ko nag xale boo xam ne macha allah xamul TikTok. xamul xëy na xañ na xam ne nii sax mais xam naa ne yàlla dana ko sàmm ba du ci du ci imprégné wu complètement voilà il est concentré sur l'essentiel nañ ko nañ nañ ko ñaanal rek yàlla mmh. yàlla ko yokk ko parce que ay moromam fi nekk ah mmh. ay moromam te xëy na alal jëma am ñeneen am nañ ko mais il préfère def ko feneen que moom fu mu ko def macha allah jërëjëf